mu ne àddina nag loolu rek moo fi kenn na mënta fexe ba kenn du mu ne baayam nee na mbañal daraa koy waral nit ki fa ngay mel nu melut nit ki fa ngay mel nu melut mu bëgg koy mel mu bëgg koy mel te melu ko wala nga xam lu mu xamut wala nga xam lu mu xamut mu bëgg koo xam te xamu ko mu xañaanee la waaye kañaan lu métti la mu ne waaye kañaan nag dafa métti ñu ne kañaan moo gën a tàng safara moo gën a tàng safara xam nga safara mu ne xam nga safara boo sottee ndox mu fay boo sottee ndox mu fay waaye kañaan moom waaye kañaan moom tàngoor wudul fay la